salaamaaleykum laa mi fa mbayi nañ ci jàmm bëggee naa leen ziar naa leen te di leen safa bu baax a baax sax di leen wax na leen nag gars yi euh, tey dañuy def juste benn petit vidéo mooy loolu quoi bu ko defee ñu xool li nga xamante ni moom moo xewoon démb ci réew mi ñun ñëpp gisoon nañ ko muy benn marche pacifique bu euh, askan wi doon amal mais ci biir marche bi nag euh, wax dëgg fa yàlla boo ko seetaanee dangay gis ne benn parti kese dajewu fi ñu baree fi daje ñoo xamante ni tey wàllum dund gu cher lañ doon kaas ku ne xam na ne instant bi dund gi yombut waaw lépp a yokk waaw ñii ñii ngi kaas wàllum courant bi nga xamante ni moom lañ yokk ak ndox mi comprendre nga ak manque ndox bi nga xamante ni moom moom moo nekk université Cheikh Anta Diop comprendre nga ak yeneen affaire de toute façon gars yi sénégalais daal wax dëgg fa yàlla am na ñu leen mett ci réew mi de ñi seen xol di métti ci réew mi bari na de wallahi lazim démb laa ko xam de waaw da ngay gis koo xamante ni ndeysaan dafay ñaxtu di wax loo xam dana leer na kii li mu wax ci xolam la ko tibbee ba tax na gars yi Euh, jël naa ci quelques vidéos ñun seetaanandoo euh, marché bi seetaan gars yi bu baax a baax a baax di leen wax ni leen nag euh, ah gars yi bañ nañ de <laughs> am na leen metti daal nañ nañ nañ dem seetaani marché bi te ñëwaat gis gars yi li nga xamante ni moom la leen metti ñu ñëwaat mën a mën a mën a continuer vidéo bi doog a mën a commentaire. man géejawaay laa jógee atelier laa yor dama ko teg ñëw suba ba léegi sama ci laa may woo pour ma ñëw liggéey si mais dafa am loo xamante lu ëpp duuru ci réew Macky Sall bañ koy fal lii taxul woon. muy indi ci réew mi ay problème yu dul jeex doo comprendre kenn xamul fa la jëmee réew mi. kon Macky ñu kontaan ñun ay yaay lañu danoo sonn suñu borom kër yi seen salaire yi ñu loi seer na ceeb seer na diwlin seer na 5000 lañ ñu daan jox léegi il faut nga takkale takkale takkale pour togg. àddina métti na Macky na ñu yërëm loi yi na ko teg ci yoon. Macky Sall dafa war a xam ne réew mi doonu ko ci ay maamam Sénégal Sénégal wu la. il faut mu tëddee ñaaxaandaay. Abdoulaye Wade nekk nag ba jóge fi lii muy def di bloqué ay opposant loolu musta am waaw mais dafa war a bàyyi nit ñi moom mbër mu am da ngay bëree te bëggoo am euh, bëggoo am koy bëree yow rek ak ci làng loolu fan la am ci Sénégal loolu fan la am ci àdduna opposition ala kuli al dafa mës am Sénégal Abdoulaye Wade ak Senghor dañ daan opposé wu te kenn mësuta xañ sa morom pour mu dem élection mais Macky depuis mu nekk ci nguur gi kenn dematul élection ku mu yaakaar ni yaa ko mën a sonal rek mu écarté la te loolu ñun duñ ko nangu Sénégal démocratie vingt six ans d'opposant Ablaye Wade di ko xeex boobu suñu permanence a ngi fii bépp sénégalais boo gis fii rek ne sénégalais ko ñor kenn joxuñu paas dañoo tëj suñuy place Macky Sall moomul réew mi ñun ay sénégalais lañ ay patriotes lañ dañoo gëm li ñuy def Macky Sall départam teel a commencé lu leer laa wax nii gis nga ko woon France lu ko raw lañ fii Macky Sall bu dewoon ba dem sawara sax am ñu ko fa tertu Macky Sall bu dewoon sawara dina am ñu ko fa tertu yuuxu ko àjjana moom du fa dem lu leer laa la wax ni Macky Sall nag jëndu. waaw nag dem suñu estime nag jàll bu ñu jàllut. ñun fii ñun kii bëgguñu ko. bëgguñu ko nag dem yoonam. bëri loo xam ne xamuñu ko woon Ousmane Sonko moo ñu ko xamal ñun. tey jii lu bëri bu amee Sénégal grâce à moom Sonko lañ bëgg moo fi nekk te incha allah rabbi day bokk si élection yi si nii. wala si ne dee ben yoll nak buñu waxal fi waxee fii dañuy rend fii sonko jël gouvernement damay teud ñu rendi ma barki salatu fatia man patriote 100% la tay sama serigne suma wowon woowoon sonko woo sama serigne day xaar moom may dégg parce que sonko daf ñoo fekk ci buumum ñam buñu mbaki Sall yew momi ki mbokam wallahi alazim mu yewiñ mbaki Sall moy mbeur mo xamne ne ñemewul bëre kumu mu day taamu kumu demal election ak kumu demal election sénégalais liñ ko wax leen la moy ñun nan liste yeewi askan bi dugg wala sinon élection du fi am. yow yaa ngi liggéey. ñun maa ngi liggéey man électricien laa dama bàyyi sama liggéey ñëw man du ma chômeur mais ñun Sénégal moo ñor ñun ay patriote lañ nekkul loo xam ne dañuy bëgg lu neex Sonko ñun même bu Sonko toogul ki bi toog na doxal dëgg bi liñ doon xeex 2012 moom la ñu indilaat kon démocratie dafa gën a dellu ginnaaw. kon ñun jeunesse bi ñu sommes conscients e réveillés. Sonko man moo ma gën a jug Sonko laa gën a wóoru ak sama bopp. ci wàllu xaalis ak ci wàllu lépp. Macron moom Macron pour lan choix. parce que Macky Sall dañ ko fal ñun Sénégal ñun ñoo ko fal mais gis na ni moom ni mu respecté Macron sax respecté wu ko suñu sëriñ yi. bu jàkkaarloog Macron day lox comme xol comme ku gis sa mooy loolu. te bu ñëwee fii Sénégal di ñu da wax sax muy muy waxee benn ton boo xam ne respecté wuñu man Sonko tey su ma ñëwoon tey ñu ne ma Sonko nga ne ci jigéen ma ñëw fekk ci kaw jigéen keroog laa ko gën a gëm ko ku ma am ndey ku ma amul ndey su fekkee ne yow pauvre nga même soo defee deful sax soo demee tribunal dañu lay tëj su fekkee yow riche nga ànd ak pouvoir bi loo mun di def muy li gën a garaaw ci defin jël su population bi duñ la tëj sàcc ko teg ko sa kër di dund yow ak sa njawoot kese wala di ci ay compte extérieur tey jii moo waral lii yëpp. bi mu nekkee impayé domaine 15 ans fukki at ak juróom mu génn mu ne ana kan moomu mën a toppee benn 15 ba ma fa lekk ñëwal nga audité ma man loolu laa ko toppee parce que loolu lañu soxla. koo xam ne su la joxee suñu alalu réew di nga ko teg ci yoon kooku lañ soxla. jaay doole gi metti na ma gis ni ñëpp ci war a taxaw maanaam du xale yi ñekk ñoo war a taxaw mais mag ñi aussi dañu war a jóg taxaw wax ak Macky sàll wax na lii muy def ëpp na ca doy na loolu moo tax ma jóg déplacé wu uniquement pour ñëw ci woote bi nga xamante ni leader yi ñoo ko woote te ma xam ni ñoom aussi jàmmi Sénégal rek moo leen tax a dox. li ma métti mooy euh, li ma gis bitim réew euh, di ko gis fii. affaire daf may naqari trop maanaam daal groupe nit ñoo réew mi groupe nit yore réew mi e seen ay kat kat yor seen seen kër seen ay seen euh, loolu ba nga gis ko ci si si bitimu réew nga gis kat kat mu romb rek if da nga toogaat ay ay quatre heures temps ba nga gisaat kat kat mais fii chaque minute rek kat kat romb la man daf may jaaxal kat kat jot ay quatre vingt millions cent millions nit ñi di ko fooyee fii affaire bi daf may jaaxal. boo léegi Macky bu mu gouverner ba léegi ay njuuj njaaj ay coup d'état ay ay lu nekk lay def. loolu nag ñun dañoo doyal. ñu xool Macky Sall mu nekk booy bu ndaw comme ñun. xam nga juddoo Fatick màggee Fatick di daan jàng ci ay ay suufu poto lamp di reeree sombi xam nga papaam di garder yaayam yaayam di jaay gerte caaf ñu xam ni kon kii xoslu man la comme ñun xam nga ah dëkk na benn tali gii benn tali dëkk na fi fii amee na fi bor location ba léegi waaye sëñ wax waaw mais bien sûr xam nga ñun ba ñu demee di fol Macky Sall dañoo xool ñu tolloon moom génération xam ni kii bu ñu bu ñu ko folee ñu mën a dimbali mais moom dafa tas suñu yaakaar Macky Sall xam nga dafa nekk koo xam ne sax amul fulla amul fayda amul jëm man nan bu ñu bu ñu commencé manifester mu daw dem tay deug na ma nga France. est-ce que nekkul ci programme rewmi mi programme daw kan la. moom dafa ñëw jaay suñu ngor xam nga def ñu ay jaam bëgg a bëgg jaay su waxuma la jaay jaay suñu ngor rek mais waxu ñu la lool sax mais dafa ñoo bëgg a def suñu doom yi ay gor jigéen. Macky Sall li mu bëgg dafa tële munul dañ ko mayoon ab fi ba 2024 mille 2024 bu fekkee munul nañu jox suñu nguur ñun ñu gouverner. il n'est pas question. fii waruñu fee nekk ay góor jigéen réew mi lu ñu sonn rek kës néew Sénégal Sénégal amul lu mu manqué amul dara lu mu manqué Sénégal am na diamant am na pétrole am na or Sénégal am na surgone am na lépp. lan moo ñu tere développé lu xew. sëñ bi kay dem riisi di wax affaire ñebe kooku daf ñu yëpp dem riisi di wax affaire ñebe kooku daf ñu yëpp ñun soxla wuñu ñebe gis nga suñu suuf bii ñu am boo demoon Risatol diggante Risatol Fouta Waalo diggante ba Saint-Louis man zone boobu laa nekk di bay la nekk suuf ndox du jeex. mais tey tey suñu suuf lépp jaay nañ ko. Macky Sall li ma koy xamal mooy. billaahi wallaahi wa tallaahi jeexal nga da ngay dem de gré ou de force. billaahi wallaahi li ma la xamal mooy la Cheikh Bara waxoon rek bi ngay yor bi yor jaasi bi di xupaate mois de mars lañ ko rocc mbar nga dese mbar xamatoo jaasit da ngay dem fa force. Macky Sall nag lu mu lu bañul. bañuñu ko. danañ xeex ak moom ba xeex jeex. danañ dee ngir moom ñun soxlawuñ dara ñun lépp lu a am am nañ ko mais Macky fii pour ñaari yëf ñëw naa pour. dong daara yi ba Macky Sall toogee ba léegi ni sonal gi mu sonal sëriñ daara yi ak dong daara yi même fédéral bi sax dañu ñu lu toll noonu métti na trop commerce bi métti na trop loo daan fay kilo mil léegi yaa ngi dem 11000. mi ñu fi indi yëpp. mooy patriote. waaw ñëw jàppale Ousmane Sonko te jàppale suñu bopp la jàppale Sénégal ndax gis nañ Macky Sall lu mu bëgg a def suñu réew mi te duñ ko nangu suñu bakken lañ ci toj bu laajee dee ñu joxe suñu bakken léegi pour suñu sët yi ak suñu doom yi bu ñëwee am jàmm. waaw ndax lii ñu ko seetaan ça ne pas. may wax sénégalais yi nag ñi xam ne Macky dañu a jënd ci ay dee rek allo jokkoo jokkoo ak Macky ku ci képp ku ci lekk dërëmu Sénégal billahi di nga ko guqi boo faatuwul boo ko fayul nii di nga ko fay ñi yàlla moom mi ngi gis lépp képp ku lekk dërëm Macky Sall ko guqi te Macky ci nii wala ci naa 2024 di ñu abal insha rabbi Jambar yow tam bokk nga ci ñi def déplacement ñëw buntu kër Ousmane Sonko taxawaay bi lan moo tax jubaliwul directement euh, fële de place l'Obélisque waaw dañ wax président Ousmane Sonko d'abord bëgguma nga naan Ousmane Sonko waaw parce que euh, li tax wax loolu majorité bi moom la ñu bu dee dëgg rek moom dëkk moo ko xalifa général bu ñu koy wax mooy président Ousmane Sonko moo tax bëgguma sax nit di wax Ousmane Sonko gis nga tey ji ak suba ak ba at yi ñëw moom mooy sant ñu def Macky Sall na xam ne ñun bëgguñu ko ñun soxlawuñu ko seen dégg ñun dañoo doyal. tey liñ liñ gën a bëgg mu leer suñ liste bi day dem ci nii wala ci naan mun. conseil constitutionnel moom joxe na. xoolal conseil constitutionnel lijjantiwuñ ko ndax tey jii ku fi ku fi joxewoon liste bu normalul dañ lay rejeté pour bi dem suppléant dem fu mu am. loolu xale bu xale CP bi sax xam-xam na loolu du yoon nañu teg mbir yi si yoon bu ñu ko tegul si yoon ñu teg leen ñoom ci yoon. dañ ne ko non non du jàll il faut il faut que Macky Sall mu xam ne Sénégal yi ñun ñoo ko faloon. daf ñu trahir nag li mu waxante woon ñun defu ci lépp di sàcc suñu alal parce que tout Sénégal yi ko wax boo nee Macky Sall du suba si mu tëj ko dafay jeex. dama taseeg ay xale ñu ne ñun dañoo nare Alain Blanche dañoo bëgg a wax xam naa ne duñu jël doomi jàmbur di leen teg ci écran bi mais ay xalé yu ndaw dogalé ñu né ñun dañu bëgg wax parce que jangatuñu amatuñu ben expérience jangatuñu amatuñu ben expérience lepp à cause de Macky Sall limu waxante ak enseignant yi dara la ci defut fen kan la fen fen kan la Macky menteur la hypocrite la barke Serigne Bamba yak na Sénégal wéké na suñu démocratie mais dañu no à la troisième mandat so suñu suñu suñu suñu suñu bi valider par A ou B suñu bakkan lañ koy jox barke Cheikhul Khadim tay ji Macky

donc lol moom préfet il est trop petit même Macky Sall il est trop petit pour l'interdire. soxna si moytul ma ndaw li nga xamante ni dafa nekk ci réew amatul ci réew mi yaakaar xam nga nekk ci réew mi nga xamante ni fépp ngi tàkk ci benn parti ci réew mi mu ne fenn fi nga xamante glace bu sedd guy ma nga fa kooku lu mu jaar ci tàkk tàkk tàkk tàkk bi xuus pour dem ci waa jooju Ousmane Sonko dinañu ko def Macky Sall dañ dem ba amatu ci moom benn yaakaar na jóge suñu réew mi dem abal ñu te yàlla rek tax. non mais li amoon mars buñ defaatee lu mel non. li amoon lu raw mars amaat fi loolu moom dañ leen koy teel wax Sonko est sous contrôle judiciaire Macky Sall est sous populaire. gis nga li gën a bon ci réew nga dem ba waa réew ma bëggatuñu la ngay forcer naan da ngay gën a toog ñu lay gën a bañ man bu ma doon takk soxna Macky Sall ñëw si jàkka jël may mayee soxna suur naa soxna soosu àddina ak àllaaxira billaahi lazi Macky Sall ndax dem te yàlla rek tax. li ne bu nekkon man la man bu newoon man la man man personnellement moi seul damay jël tag sama bagage donte ak mous la fi am sax ma dagale ko nak seeg moom xamne na gaay beugatuñ ma. senegal mo ñu ñor ceeb bi sugar si ak ak diwlin bi leneen ñor ñu ñu ceebee ñu fi indi ak job la sen dama bëgg lek ceeb bi ak diwlin bi ak sugar si man mo fi indi leneen indiwuma fi en tant que dañoo xiif jamonoy tif si jël ceeb bi da daan bëri ba ñuy tur ñamu maam léegi da ngaa gis ñam maam jigéen ñi daan sabaru seen tànk yi dëgëratul parce que lekkatul ñëpp a xiif on est bien on est bien on est bien Diop jërëjëf ma borom dëru tuuf dërëm da waa ji damaa foog ne xam naa Diop gi mu ni moom xam naa ne sumi lu ñu bëri mais nag euh, c'est vrai wax na dëgg nag instant bi moom lépp a yokk moom dund gi moo seer lépp seer waaw lii moom Macky bu yeboo bu la tiitalut war ngaa xoolal sa bopp quoi lii moom man moom wax dëgg fa bu nekkoon man la may jël ndànk samay bagage bu ko abalee xam ne nag gars yi pare nañ ci man gars yi kon bokk ñu wax gisandoo wasalaam